yëkkati na président Macky Sall day dëgg-dëgg mooy borom kër bi nga xam ne amatul ba ci biir këram yéenal Walf Quotidien ma nga naan man fii la mbir yi toll turbine yéen a kaay naan kon déet moom kay këram sàll ngaari lam tooro buur géde ma ngay bëgg tas gannaaw Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye jaawo kan nag ci boppam moo fas yéen a jëm paaka ginnaaw sàll laas naan kon Abdoulaye Daouda Diallo tey ji Abdoulaye Daouda Diallo ma ni la dina démissionné te conseil économique social ak environnemental Abdoulaye Daouda Diallo buñ ca noppee dina taxaw aljuma ji ne candidat la taxaw ne nag mooy mooy ki nga xam ne moo fas yéene wàllu APR laas naan man président Macky Sall mag naan kon boo demee ay Abdoulaye Daouda Diallo boo demee dana métti ci yow wala ndax da nga dem bàyyi mu métti te doo am ndam le tee mooy yéene kaay nan kon fippu gi daal dafa maase biir APR gaa yaa ngay dal ci kaw président Macky Sall mu mel ni kër goo xam ne amatul buntu xeer yaa ngay jorjori di dem biir palais Sall ngay mel ni kuy moytu ay ñoñam ñi nga xam ni moo leen defaroon démb le tee mooy yéene kaay naan man daal ñoo koy lii ma gis bu ne mbaadu nag fippu du wër ndomb biir APR tribune yéen a kaay kon en tout cas laaj ba mooy gannaaw Aly nguy Ndiaye ak booy Boye Diao nan naan kon boole ci Abdoulaye Daouda Diallo ndax tey jii dina démissionné tribune naan kon yàlla na xel dee ndax nag waa APR ci boppam authentique yi laa wax de ruu mandat ak wax ci kaw moo ci ne waaye ñëpp mere président mag Sall ci tabb gii mu tabb Amadou Ba l'observateur naan Sall mii ngeen jàpp ne ñu ngi koy jor ay xeer moytu leen mu toog ca biir néegam di def teex teex may ree ba ngeen war a samp mooy APR dafa xar ñaar wala yii nag yëfu njombor la muus muuslu vox populi naan en tout cas Mame Boye Diao moom dem na ñu dàq ko ci saa si CDC Ahmed Sakho daal di koy wuutu démb démb ma ni la Mame booy jaawo gis nag réalité opposition naka la dugg ci staat ba ñu ne ko acca maam bul fi taxawaalu acca surso a naan man mam booy Diao kat lii rek la mbir mi demee dafa toog ci boolu supp bennoo bokk yaakaar ba Mame booy jaawo ni xaax ba ñëpp a mu ne tëf ca biir boor ba président Macky Sall simple loxoom Ousmane Mame Boye 12 la wax candidature am gi 14h ñu daal di koy dàq Fabouli ma nga xam ne mooy deuxième adjoint o maire ba moom ci boppam nee na Amadou Ba lay daal di jàppale le peuple quotidien naan kon Mame Boye fa nga dal baaxul de ndax nag na nga tuddee sa coalition ba rek soo am war di ni nee na turama le point actu naan man politique bi neex na wala ndax nag Thiès ci boppam fi mu ne ña nga daal di xaajaloo ci kan mooy jàppale kan njiital AIBD moom Abdoulaye Dièye nee na Amadou Ba jàppale ndax nag président Macky Sall tabb Benno Bokk Yaakaar tabb Abdoulaye Dieye moom lay àndal njiital AIBD ci boppam la mu dajale woon ci signature ngir président Macky Sall am beneen quinquennat ci réew mi moom la jébbal Amadou Ba ni ko doxalal ndax nag président Macky Sall ka mu tegu gëtam daal di koy tabb man Abdoulaye Dieye kooku laa àndal yéeni kaay bi naan maan ma Maodo Malick Mbaye nag mi ngi ne pat Abdoul mbaw nag boo moytu Abdoulaye Daouda Diallo lay àndal turbine yéeni kaay naan maan Cheikh Diouf directeur des infrastructures aéroportuaires di responsable APR ca commune bu Saly nee na moom it Amadou Ba lay jàppale président Macky Macky Sall lim fi daal di taxawal ñu daal di koy wéyal maire bu Kër Moussa di Momar Ciss moom it nee na lu président Macky Sall wax la wax kon ma nga ca gannaaw Amadou Ba ku wax lii wax la ca des l'enquête quotidien naan man Pastef mbaale daloon parti démocratique sénégalais nag du leen dal ndax ba nii jéemunu gëstu plan bee te boo moytul moo fi sës na Gagny Sakho naan xeex bi dafa war a nekk nag ci xool plan AB ba ci C daam booj naan campagne bu Sonko bokkul day dina metti wala source a naan man waxuma la plan A rek di Ousmane Sonko waaye plan B dina jafe ci ñoom ndax numéro 2 bu parti ba Bassirou Diomaye fay daal dinañ koy tegaat yeneen charge yoo xam ni maar day taali moom Bassirou daanaka li ñuy toppee Ousmane Sonko lañ koy toppee ba mu des nag sàccub téléphone ba yéen kaay bi naan maan génnu Bassirou Diomaye fay ca kaso ba gën na dëgër direct news naan maan waaye coow laa nga ca parti démocratique sénégalais boo ci génnee ay message whatsapp rek ak facebook ak twitter Karim Wade moom ma nga ne pat deful déclaration Karim doorul fayuwul joxewul interview deful vidéo waa parti démocratique sénégalais nga ca opération ñoo ñibbisi Karim def patt ci ruqam ña ngay xumbal di waajal ñibbiseem waaye ba nii kenn mënu la wax Karim kañ lay dikk la leen daloon 2019 nag mbaadu nag moo leen nar a dalaat 2023 bii woote guerre teertu Karim ba dikk des ci kese Karim toog Qatar di nelaw ay màggali màggal ba màggal 2023 bii romb na Karim yéene kaay bi naan man gàmmoo ngi ñëw xanaa ñu tàllal loxo yi rek ne Karim dina teew ci gàmm gi ndax nag bu gàmm weesoo ba présidentiel yi weesu te ñëwul loolu nag mooy faatu parti démocratique sénégalais fayal laaxu waaw ndax nag donte ñi ngi yee salaat seen parti bi am na ñu ne Karim moom dëgg tànkam Sénégal ak ko faat la yemale maanaam ci gàttal doomu Abdoulaye Wade gi moo waajagul ñibbisi yoor yoor naan maan ak lu mën a am jàppale ni APR moom xar na ñaar le point yéen kaay naan maan Amadou Ba de moo waral coow li Amadou Ba nag ngir mu jël ndam li mbaa du jël nag Thérèse Faye Diouf def ko directrice de campagne ndax nag Thérèse mii ku xas Amadou ne bokkul ca njël mbanoo xas Thérèse ne bokkul ca njël ba muy ànd président Macky Sall yàgg na métti Amadou Ba deux minutes pour lire l'essentiel naan xoosante ga ca xosanto coow la coow la préfet libération yéeni kaay naan def nañ autopsie ci ñaar ña faatu ñaar ñëpp dëggal nañ ne bal moo leen faat turbine yéeni kaay naan kon waa laaj ba mooy ñi ñu faat ay bal ci réewum senegal ñan ñoo ko def ndax nag loo ci man ci déggit ni doxantoowul ak bal di ko jor askan wi di leen faat te faatug bal foo ko déggee manifestation moo am laaj ba mooy l'enquête yéen cey ubbi fu muy mujjee kan lan mës a jàpp ci manifester nga tiire askan wi bal ñu ne la niib yaa ko def askan wi moom mën nañ faatu ci bal waaye dëgg dëgg leeral seen faatu gii wala leeral seen i mbokk ñu xam ne diw moo faat diw mësta am ci réew mi turbine yéene kaay naan man te boo mooy tuuli dan nuy faat ba nu jeex rek waaye du mës a leer ci réew mi ndax nag bari na ci sénégalais yoo xam ne deesatu leen sax mën wañ ni ci ñoo xam ne dañoo daal di faatu te ay bal moo leen faat ci manifeste enquête kenn mësu ko ci gis ay daanit kenn mësu ko ci gis mu mel ni nag Sénégal dañoo nekk askan woo xam ne daanaka ay bàyyi ma sax moo leen tane ren di jéggi daal moo am ci réew mi